fi yawmayni wa taj'aluuna lahu andaadan dhaalika rabbul aalamiin wa ja'ala fiihaa rawaasiya min fawqihaa wa baaraka fiihaa wa qaddara fiihaa aqwaatahaa fii arba'ati ayyaamin sawaa'an lis-saa'iliin thumma stawaa ila as-samaa'i wa hiya dukhaan فقال لها ولأقضيتها طوعا أو كرها قالتا أطينا طائعين فقضيهن سبع سماوات في يومين وأوحي في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن عرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم رسل من بين أيدي ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون fa arsalna alayhim riihan sarsaran fi ayyaamin nahsaatin linuziqahum azaaba al-khizy fi al-hayaati ad-dunya wa la'azaabu al-aakhirati akzar wa hum laa yunsaruun wa ammaa thamuud fa hadaynaahum fastahabbu al-'amya 'ala al-hudaa fa akhadhathum saa'ihatu al-'adhaabi al-huuni bimaa kaanuu yaksibuun wa najjaynaa alladhiina aamanuu wa kaanuu yattaquun wa yawma nahshuru a'daa'a llaahi ilaa an-naari fa hum yuhdharuun hattaa idhaa maa jaa'uuhaa shahida 'alayhim sam'uhum wa absaaruhum wa juluuduhum bimaa kaanuu ya'maluun wa qaaluu كل جود لما شهدتم علينا قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذين ظننتم بربكم أرضيكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مسوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين الله أكبر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 وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا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 صبروا وما يلقيها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون الله أكبر الله أكبر fa in istakbaru fa alladina inda rabbika yusabbihuna lahu billayli wannaar wa hum la yasamun wa min ayatina annaka tara al-arda khashi'a fa idha anzalna alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat inna alladhi ahyaha lamuhyi al-mawta innahu ala kulli shay'in qadir inna alladina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alayna afaman yulqi fi an-nari khayrun amman ya'ti amana yawma al-qiyamah ya'malu ma sha'atum innahu bima ta'maluna basir إن الذين كفروا يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقي في النار خير من يأتي آمن يوم القيامة يعمل ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل لرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلنا قرآنا عجميا لقالوا لا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا هؤلاء يمنا في آذان وقه وعلم عمي أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنه لبشك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد الله أكبر سواء الله لمن حمده الله أكبر allahu akbar allahu akbar allahu akbar salaamaaleykum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 إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من الأنثى ولا تدع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شيء وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه السوء فيئوذ قنوط ولنذقنا رحمة منا من بعد ضراء مصر يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلو نبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعقد ونأى بجانبه وإذا مسه السر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به ما ظلموا وفي شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ولم يكف بك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بك kulli shay'in muhiit بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين خاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله عزيز حكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفظ عليه وما أنت عليه بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو ولي الموت هو على كل شيء قدير وما اختلفتم من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الناس أزواجا يسركم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبتوس كلمة يشاء ويقضي إنه بكل شيء عليم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده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 ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أوثوا الكتاب من بعد لفي شك منه مريب فلذلك فادعهم واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم ولنا أعمالنا و... الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير walladina yuxaajuuna fi llahi min baadi ma stuhiba lahu xujjatuhum daahiratun inda rabbihim wa alayhim gadab wa lahum cadaabun shadiid allahu alladi anzala alkitaaba bilhaq walmizaan wa maa yudriika la'alla assaata qariib يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا يشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء هو الغني العزيز من كان يريد عرس الآخرة نزد له في عرسه ومن كان يريد عرس الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء صاعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة فصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في رضوان الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقتل حسنة نزله فيها حسنة إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فيس إلا يقدم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور هو الذي يقبل التوراة من عباده وهو الذي يقبل التوراة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيد من فضله والكافرون لهم عذاب شديد الله أكبر الله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 فمن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير wa ma antum mu'jizun fil ardi wa ma lakum min dunillahi wali wala nasir wa min ayati al-jawari fil bahri kal a'lam iyasa yuskinu ya fa'alna rawakan ala dhayri inna fi dhalika la li kulli sabbarin shakur aw yubiqunna bima kasabu ya'fan kathir wa ya'lamu alladhina jahadu fi ayatina ma lahum min mahis fama utitum min shay'in fala hayatid dunya wa ma 'inda allahi wa baqi lilladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun والذين يجتنبون كبائر الإثم الفاحش وإذا ما غدوا هم يحفون والذين استجابوا لك وأقاموا الصلاة وأمرهم سورة بينهم مما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم بغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يسلمون يبغون في هذا حق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر فإن ذلك من عفو الذنوب فمن الله ما لهم ولي من بعده وترى الظل لما هو العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وترى يراد عليها قاشين من الظل ينظر من تنفخ فيه وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وليوم القيامة ألا ذلك في ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرون من دون الله ومن يضل ما له من سبيل استجيبوا لأبوا من قبل يأتيهم الله وذر من الله ما لكم من جديد ولكم من نكير فإن عقروا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا وإنا إذا أدخل الإنسان منا من فيه بها وإن تبصر ما قدم أيديهم فإن الإنسان كفور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 wa ma kaana li basharin an yukallimahu llah illa waxyan aw min waraa xijaab aw yursila rasulan fa yuuxi bisni ma yashaa innahu aliyyun hakiim wa kadaalika awxaynaa ilayka ruuhan min amrinaa maa kunta tadrii mal kitaab wala liimaan walaakin jacalnaahu nuuran nahdii bihi man nashaa min cibaadinaa wa innaka la tahdii ilaa siraatin mustaqiim siraati llaahi allazii lahu maa fi samaawaati wa maa fi l-ard alaa ilaa llaahi tasiiru l-umuur bismillaahi rahmaani rahiim haamiim والكتاب المبين إنا جعلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا علي حكيم أفلا دعنكم سكا سبعا إن كنا قوى المسرفين وكما أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتي من نبي إلا كانوا به يهتدون فلقنا أشد من بصر ومدي مثل الأولين ولئن شئتم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا ويعلم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنزلنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الغي كلها وجعل لكم من الفلك والعالم ما تركبون ليستوى على عظيم رزق نعمة ربكم عليه ليستوى عليه وتقول سبحان سقنا هذا وما كنا مقينين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من بعد جزاء إن الإنسان لكفر مبين أو التقدير ما يخلو بناتي وأصدقكم بالبنين وإذا بشر أحد ما ضر لهما مثل ظل وجهه سودا وكثير أو من ينظر في الرول في إلزام قيم مبين وجعلوا الملائكة لهم درما إناشا نوسوا قلم سكساد ويسألون وقالوا شاء ما عبدنا ما المدلل من إلا يغوصون أما أتينا كتاب من قبلكم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في خيرة من نذر إلا قال مترفوها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 allahu akbar assalaamu aleykum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 قل ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباؤكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لق... وإذ قال إبراهيم لأبي وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء هؤلاء وآباؤهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولو ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا ومعارج عليها يسهرون ولبيوت من فضة ومعارج عليها يسهرون ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك فسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا وجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقالوا إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية من آية إلا هي أكبر وما نريهم من آيات إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب ولعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه لنا تجري من تحته أفلا تبصرون أمنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يمين فلولا ألقي عليه أصابرة من ذهب أو جاء معه الملائكة المقترنين فاستخف قومه فأتاهم إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يسدون وقالوا آلهتنا خير منه ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يسدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين الله أكبر سمع الله لمن حمله الله أكبر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 ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فطلب الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم طاف عليهم بسحاب من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون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 قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يقودوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق الحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرغ كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بطقاد مبين يحصى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبتث البتة الكبرى إنا منتقمون ولقد فرنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عزت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فاصل بعباد الله إنكم متبعون وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر allahu akbar asalaamaaleykum allahu akbar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 كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين كذلك وأورثنا قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناه من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنصرين فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم التبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام لسيم كالمغل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب حميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناكم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقيهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك نسيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يسر مستكبرا كأن لم يسمعها وبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزا أولئك أولئك لهم عذاب مهين من ورائه جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله أكبر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 وللذين آمنوا يقتل الذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعدهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أم نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هدى الله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بشره غشاوة فمن يهدي من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا يتلى عليهم آياتنا ما كان حجتهم بينات آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين لا أن قالوا توبوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاسية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون عذاب اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين أما الذين كفروا فلم تكن آياتي تتلى عليكم تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين دعا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننسيكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأويكم النار وما لكم من ناصرين ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هدى وغرتكم الحياة الدنيا فيوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر الله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 النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل توسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر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 الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس القناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده